ndaxam mën ngeen defal seen bopp seeni mock-up loolu lu mën a nekk la loolu la ñuy gis tey euh, ci chaîne bi di tuto Baba Design moo up nag di li nga xam ne moo ñuy euh, permettre ñu mën a won client bi bu ñu imprimer ay créa am nu muy mel donc moo këpp euh, baax na trop daf leen di jàppale ci sécuriser seeni créa donc nañu dajee léegi sama machine bu ko defee ma won leen noo leen di defaree seen mock-up bu leen fàttee abone bu leen fàtte itam bés loxo bu bleu bi ak sonné bi bu ko defee ngeen jàppale chaîne bi mu jëm ca kanam kon nañ daje sama machine ma won leen lu ñuy defaree suñu mock-up bu ñu ubbee photoshop ba noppi li ñuy def mooy maanaam dañuy dem ci fichier ouvrir ñu dem ci base bi maanaam base bi mooy fichier bi nga xam ne ci lay basé wu pour mën a defar mockup bi man lii laa amoon ci internet bi laa ko téléchargé woon léegi ci lii lay basé wu pour créer ay rectangle rectangle yi nag bu ma ko créer ba noppi dama koy dupliquer damay bës alt cliquer glisser ma dupliquer ko léegi ci rectangle bu ne damay dem ci calque yi ma créer objet dynamique clic droit convertir en objet dynamique bu njëkk bi bi ci topp itam ma def clic droit convertir en objet dynamique léegi su ma paree damay dem ci point pointillés yi ci maanaam euh, euh, point yi ci angle yi ma teg ci sama kii sama euh, contour de sélection yi léegi su ma paree damay jël beneen côté bi itam ma teg ko ci angle bi côté bi itam ci suuf ma teg ko ci angle bi léegi su ma paree loolu damay utiliser déformation bi donc déformation bi bu la neexee def clic droit cliquer ci déformation wala nga dem fee ci kaw léegi bu ma paree nag ma ajuster ba am même forme bi que forme bi ma am ci sama maquette de base bi damay yëkkati fii tuuti donc fii liggéey bi ngeen war a def mooy maanaam da ngeen war a ajuster ba am même forme bi que suñu maquette bi ne ci suuf gis nga ba ñu am lu xaw a méngoog li ñu bëgg ci suuf itam ñu xool ñu yéegal tuuti foofu ñu wàccee tuuti lii baax na léegi da ngay buñ paree ñu dem ci deuxième bi ñu taal calque bi buñ taalee calque bi ñu dem ci poignée yi bu ñu demee ci poignée yi ñu bës contrôle ñu teg bu njëkk bi foofu ñu bësaat contrôle ñu teg bu ci topp foofu noonu ñu bësaat contrôle boole ci clic ñu wàcce ko foofu ñu bës contrôle boole ci clic ñu wàccee ko fii léegi bu ñu paree ñu déformer comme bee pour am angle bi nekk ci kaw pour am angle bi nekk ci suuf itam bu ñu bësee ci kaw def ñuy permettre ñu déformer ko gis nga déformer nañ ko loolu baax na suñu paree ñu dem ci suuf foofu itam déformer nañ ko gis nga ñu koy déformer voilà pare nañ léegi boo seetloo que ni maanaam dañu basé wu woon ci objet dynamique yi balaa ñuy ko ñuy déformer suñu euh, rectangle yi ñu amoon léegi objet dynamique yi dañ ciy double cliquer bu ñu double cliquer ci objet dynamique yi daf ñuy yóbbu ci benn feuille a mooy bi ñu njëkkoon a am avant ñuy déformer ko suñu fichier bi léegi dañu bëgg woon client bi document bi ni muy présenté woo li ñuy def mooy maanaam dañuy dem jëri document bi def fichier ouvrir document bi moo nekk noonu rapport donc bu ñu ubbee document bi dañu jël page 5 bu ñu jëlee page 5 ñu bës ok bu ñëwee après ñu dem ci menu hamburger bi ñu aplatir suñu aplatiree ñu cliquer glisser dugal ko ci kii bi ci euh, objet dynamique bi ñu amoon sànq léegi dañuy réduire bu ñu réduire ba noppi ñu ajuster ko ba mu toog ci a bi maanaam ci feuille bi ñu amoon sànq léegi bu ñu ajuster ba noppi dañuy def fichier après ñu def enregistrer bu ñu paree ñu fermer nga fermer boobu itam suñu fermer nag ba noppi da ngeen di gis ni que maanaam automatiquement page bi dafay adapté wu par rapport ak ñun euh, mockup bi ñu créer woon deuxième page bi tam dañuy def la même chose double cliquer ci objet dynamique bi suñu double cliquer ci objet dynamique bi ñu ouvrir page bi ñu amoon sànq ñu jéem a jël page 4 parce que comme bi page 5 la page 4 la ñuy jël donc léegi boo seetloo bu ñu jëlee page 4 bi. dañuy koy glisser cliquer ñu glisser ko bi jarul aplatissement boo seetloo day dépasser parce que pixel yi ñoo ëpp pixelu page biñ koy andi donc dañuy wàññi ajuster ko ba mu toog léegi bu ñu ajuster ba mu toog nag ñu def fichier après ñu def enregistrer léegi boo seetloo bu ñu enregistrer dañ koy fekk ci biir suñu mockup bi ñu créé woon donc nii ngeen mën a créer seeni mockup léegi am na loo xam ne nag euh, perfectionnement la maanaam def ci ay effet ak yooyu donc effet yi da ngay xool effet yi nekk ci biir livre bi muy mel ni benn pli wala muy mel ni benn reflet bu euh, boo xam ne euh, livre bi da koy da koy wane donc léegi dañuy tàmbali ci bu njëkk bi bu ñëwee ci bu njëkk bi ñu def clic droit bu ñu demee ci option de fusion yi bu ñu paree ñu dem ci incrustation de dégradé donc incrustation de dégradé bi du ñu def benn dégradé boo xam ne day rempli dañuy dem benn dégradé boo xam ne dañuy wàññi transparence bi ci digg bi euh, transparence yi nekk ci wet yi ñu génne ko carrément opacité bi dañ koy génne carrément foofu donc dañ koy samp ci digg bi ñu jël boobu def ko ci gauche bi ñu def ci blanc léegi opacité bi nekk ci kaw ñu def ko zéro bi ci digg bi ñu def ko blanc opacité bi nekk ci kaw ñu def ko cent voilà léegi bi ci topp dañ koy bàyyi blanc waaye opacité bi ci kaw dañ koy def zéro pour cent gis nga dégradé bi noonu lay mel bu ñu paree ñu bës ok bu ñu ci kii bi paramètres yi ñu changer angle bi parce que dégradé bi dafa war a jub léegi buñ ñu changer angle bi ba am li ñu bëgg après li ñuy def mooy wàññi échelle bi parce que bu ñu wàññee échelle bi day gën a méngoo ak ñun li ñu bëgg day xaw a niroog pli après bu ñu paree ñu jël curseur bi bouger dégradé bi ba mu mel ni foofu noonu page bu lemu après bu ñu paree nag ñu wàññi opacité bi gis nga day mel ni page bu lemu bu ñu paree ñu cliquer sur OK léegi li ñuy def mooy maanaam dañuy copier style de calque bi clic droit copier style de calque ñu dem fee coller style de calque léegi bu ñu bëggee réajuster effet bi dañuy double cliquer buñ double cliquer ñu dem ci euh, dégradé euh, en kii incrudation en dégradé du moins après ñu modifier angle bi euh, refaire les réglages ba affaire bi toog léegi lii mooy suñu mockup nii lañu liggéeyee suñu mockup bu la neexee am na itam yeneen moyen yoo xam ne ay t-shirt la wala ay affiche la donc presque c'est la même chose pour créer seeni mockup bopp dinaa leen bàyyil en description fi ngeen mën a télécharger aussi ay mockup euh, na ngeen jàppale chaîne bi na ngeen abonné ñu def noonu ba beneen yoon ci tuto Baba Design